mujjé déet bëgg ko xam waaw nañ ko déglu Pape Balla ñu déglu Ablaye asalaamaaleykum euh, waaleykum euh, bi mën nga ñu wax bi naka la man Mod Jaw Mod Jaw fan nga dëkk Touba Guédé Touba Guédé waaw waaw tey da ñu seet si woon mel na da nga affaire da dal absolument moom laa bëggoon wax lan la dafa am sama benn grand benn ndaw doon benn waay doon ko wutal ay visa Arab saudi mais couple la soxla nag ak jabar léegi bi mu waxee loolu ma ne ko amul problème mën nañ cee dugg bi mu ci duggee waa ji laaj ay frais dossier li ci tàmbali mi ngi ne dañuy wut ñaari passeport ñu wut ko mu ne ñu da ngeen di wutaat euh, certificat de mariage ñu wut ko yëpp biñ ko ensemble ak yeneen bi yeneen kayit yu nekk ci biir ça fait trois cent mille frais yi mhm. léegi bi mu waxee loolu ñu toog benn une semaine mu ne ñu visa bi génn mane ko léegi visa bi génn mu ne ma ne ko nu ñuy def mu ne ma danga may dugal xam ma ne ko non xaalis man xawma la ba di ko jox actuellement mhm. mais sañ naa jox ko sama mag bi comme mi ngi foofu Dakar mhm. ma dem vesel ko sama mag bi un million deux cent sama mag bi jël ko bi mu ko jëlee daal koy jox waaji waaj na ko toogal nii ci bunt bi ma ñëw daal di dugg ci biir gis ndaw si jaay billet agence ci bi daal di wut foofu ay renseignement génn jox ko këyit renseignement yi ne ko lii moom mooy billet yi hmm. demee même pas deux jours ma woo ko ne ko renseigné lul ba xam loolu mooy billet yi moom nag xamul ay billet avion hmm. mais bi mu demee laajte ko ñu ne ko lii du ay billet ay renseignement donc la kii foo demee ci agence ñu tiré la ko jox la ko doo ci fay dara hmm. waaji daal di jël un million deux cent ñu koy woo téléphone di ko woo par la suite mën ñoo fexe ba jël ko Talla Diack moom la ñu la tudd mais fi daan ñëw ci Touba nag Saliou Diack la wax moom la tudd hmm. masalan daal mi ngi sama un cinq cent yoo xam ni ba tey jii may waxee yow nii waa ji xaw ma ci moom dara hmm. waaw waa ji mosu leen ko gis xamu leen fan la dëkk tamit ci biir dëkk bi muy Dakar wala Touba Touba moom gede la fi daan dal dafi daan ñëw di fi dal si mu ñibbi mais Dakar nag moom mënuñu la wax fii la dëkk ndax suñ masaana dajeeg moom buñ masaana lijjanteeg moom li muy lijjanteeg moom ba pare boo maraîchère lay joxanteeg grand bi mu joxante bi ñibbi tëngeeñ moom mhm. mais waa daal actuellement boo ko masaana wax sax pour ma France kër wala ñu dem kër du nangoo boo maraîchère daal moom mooy kiiwam daal mhm. mooy fi nga xam ne maanaam fa nangoo dajeeg yow fii ci biir Touba dem ngeen kër gam daan dal laajte ko tellement que jëluñ ci benn assumé benn responsable ndax dañ ne woon benn Modou Modou la fi daan fekk si këram te bi ma demee laajte kër Modou Modou ba àgg ñu ne ma kooku dafa ñibbi quoi nekkul mm-hmm. leen. ça seen xaalis bu bari. ba sunu passeport ak moom mi ngeen moom kayit yëpp ngeen moom benn visa kii la ñu ne woon moo nekk nii da koo recopier woon sax da koo photocopier woon jox ñu naan ñu mooy visa arabe saoudi. Mm-hmm. c'est ça le problème affaire baa ngi nii. Mm-hmm. waaw. couple baa ngi nii Marème Fall Ndeye euh, Amary Diaw. Mhm. waaw. donc euh, boobaak léegi daal amul leen ci information porté ngeen plainte wala def leen dara. waaw sama mag bi dem na Dakar def foofu plainte am ñëw mais jusqu'à présent daal ndax waa ji toogaat naa ba mu yàgg it mu wooñu mu toog 3 mois wooñu nañu jabaram dafa faat woon France mais yooyu yëpp ay wax yi kasaw kasaw la daal en tout cas daal triant la ci jublu woon def na ko dem na. yéen nag fi mu nekk nii la ngeen bëgg. ñun buñ ko gisee tellement que dañuy fay sunu xaalis ci nii wala ci nee wala boo ñu dénoncé ko ba ñun ñi jàpp xam ni kooku triant la taala jaag la tuddu di saaliw ñu naan ko saaliw jaag mais taala jaag la tudd. moom nu mu mel. dafa gàtt nii te xaw a xees am biir boo ko gisee dafa présentable tellement nag moom ku mu mënta trompé amul te un trompeur mais ku mu mënta amul dafa mel ni nit war a mel boo ko gisee nit ku yiw nga koy teg mais daal franchement trompeur la. jommi nga. joom metti naa kay. yooyu benn la ci yi ma indaale. kon des na. daay la xelal bu garaw sax. Ah, bii moom. Hmm. mi newul ci xibaar yi sax. ah kay. waaye du lépp nekk ci xibaar yi. Ah. ah. xam naa loolu. max max football. max max nawetaan moo ah. amoon Thiès. Mhm. yëf yi mujj ci fitna. Hmm. am ci benn waay boo xam ne xam nga Sowetaas. urgence urgence. la mujjee. ndeysaan. waa koñ ba nag nee nañu takk der yi la. takk der yi nee nañu. ah ñoom ndax ma nga dégguñu leen. ah kon ñoom waxaguñu. waxaguñu. mais daal waa koñ ba daal nee nañ mais waa ji joor dañu ko dóor dóor yu métti te li ci gën a doy waar mooy. Mhm. non seulement dañu ko dóor ba ñu yóbbu ko urgence di ko faj mais nee nañu alkaati yi dañoo ñëw taxaw ci buntu l'hôpital bi. Uh-huh. ne bu génnee dañu koy defeer ah. ah loolu da lay wax ah xëy na xam naa dañoo jàpp ne moo tooñ. d'accord. joor ñu déglu. waaw nañ déglu. waa ci Ablaye jox. benn jour rek lañ gaañ. ah entraîneur la. loolu ba muy naaj ñu mënatu ko yéegal ko ci oto bi. mi ngi saña ñu mënatu ko yéegal ko ci oto bi. dem taxaw continuer di. ki taxawoon fii ci ci buntu kii bi barki yàlla moom ko nee na dañ ko doon ci buntu ci buntu hôpital nee dañ ko doon maas nii ci kanam ci buntu hôpital. ci buntu te mu ngi saña bu sonn ñu koy maas ñu xoj ko nii ba muy ba mu daanu mënatul dara. est-ce que yéen identifié ngeen chef bi xam ngeen. xam nañ ko xam nañ ko kii jëmi xamee xamee ñaar lañu kenn ki dañu ko kenn ki fii mi ngi fii fii kenn ki moo ngi ko photo dañ ko bëggoon a ko duggal ci oto mu dugg ci oto bi jëmi waaw le temps que wàccul mais mi ngi fii taxaw xamee nañ ko même bu ñu ko photo bi ñu ko dóoree koo xàmmee mu doon summi casque changé lim sol. waaw dafa changé waaw di ñëw taxawaat ci biir nit ñi. waaw góoram la doon waxal góoram ci point mais am na benn góoram lay wax am na droit wax ak góoram kon war ñu koo fekk ak góor mënaate ko góor la. kan la kan chemin bi moo taxaw na ne. dañ koo dóor dañ koo tooñ dóor ko. deful dara. xoolal da ngeen di bàyyi wax ji daan ngeen jàppale ñu rek ngir yàlla ay malade ñoo nekk fi malade yoo xamante ne dañoo sonn trop. waaw fii urgence la ah. urgence la quoi jàppale ñu ci rek ah, ngeen bàyyi wax bi ah dégg na moom amul benn problème dégg nga waaw dem na rajo génnaat na ni après day ñibbi quoi garaawul bàyyi leen wax bi dégg nga jàpp na blessure bi garaawul blessure bi garaawul garaawul bu pare da kaa maas di ko maas courant ni mën a tëgg di ko dóor la téem courant di ko maas di ko dóor mën a tëgg di ko ni ko maas mën a lu ngay maas di ko dóor di ko dóor di ko mbéj personne fekk mu ngi mu demee ah moo daawoon jalu fi la ba pare mu eh, rek jéemee ba ko mbéj dañ kaa commande oto bi waa dafa dund dafa daw dañ kaa dugal ci biir oto bi sànni duñ ko bàyyi ñu mas ko seet carrément dafa dem mënoon leen def ñu demee poste police ba dañoo jël waajo bi dugal ko ci benn oto bi indi oto bi di indee ko fii ñëpp ngi taxaw di gis oto biñ ko biñ bi dañ ko yóbbu dañ ko ah. transféré changé oto bi indi beneen oto parce que yoruñu woon jàpp ko cajate kanam bi di ko bule jël benn monote teg ko fii jël jël masque électrique bi teg ko ci monote bi ba muy crampe di toog sous mes yeux mën naa fekkee mais pas un mètre toogoon ci parc entraîneur adjoint Aïssa Dialore moo wax ak joueur nu mu tudd Malick Sall moo wax ak joueur am Dialore ban quartier la ram leen nag ram leen mooy ASC Malick bu ñu boole dafa benn équipe ñu wax ak jouram danga sille la wax jouram fu ko taxawee baaxul taxawee nii waaw police si la ko saaga nday mu tourné ñoom ñu waaj ñoom bëmbax ko door tànki ay liit ñaari liit ba pare gaa ñëw pañe ko jël liit bi doo ko saram réel mais yéen xam ngeen jeu bi bu baax xam waaj ko xam nañ ko mais waaj ko door ñëwul dañ ko transféré wax naa la ko wàññi ko door ñëwul xam nga bu baax a baax a baax a baax a baax xam na ko waaw daa dégg wax ñu ko dóor ay lii commencé ko mas ay courant daal di koy motivé oto si oto bi dañ koy motivé oto bi en même temps di ko dóor di ko mas bi oto bi ba léegi boo ko gisoo dafa saaga policier bi wala saaga ko policier bi boo ko saaga sañ policier bi am sañ sañ di ko dóor parce que tënk na sol xëy la xamul dara moo tax police ab ab taxi maanaam nga ne barki dee moo njaay jaar ci passerelle bi gis nga li mu ko coûté ñoom li ñu def moo gën a garaaw loolu ils ont fay tuer un gars yaa ngi dégg dañ ko dañ ko dóor carrément di ko kaji ay rajo. ñu ngi waa ji day génn ah. pour que ba ay rajo fay sa grave. sa bopp voilà alamu alamu. sa bopp. su boppam. te témoin. ku ñu taxaw dama koy wax. à bout portant mu taxaw ñun ñii ñu poñante ñoom ñoom ñu dóor ko ko xaar. c' est pas un seul coup. c' est plusieurs coups. mu dóor ko ko beneen copain bi ñëw jàpp ko. mais dafa saaga jëmm wala saaga. dégg ma fa benn saaga j'étais à à cent mètres de nii ci garab yi nii distance ci garab yi daal man j'étais à cent mètres de man dégguma fa man yàlla rek a tax may wax dégguma fa ay poñe nga la ko taxaw comme ni ma taxawee gars yi nii mu dóor ko fi fii man maa ko mën a témoin man parce que j'étais témoin voilà loolu mën na nekk ak vidéo ma woo maa ma dem ko am naa mu ngi nii man la man ma maa xamee naa la ba am naa vidéo bi tamit ak keneen ko jël mais ñoom ñoom da ngay mais chef yow yaay papi ki ñu bi ñu gaañ. waaw man Ibrahima Sall. waaw. garagiste noor. moom moom bi lu mu la nu mu tudd. Sall. waaw. Euh, dama nekk a bi rek ñu ma téléphone. ne ma parce que Malick euh, euh, alkaati yi jàpp nañ ko dóor nañ ko ba gaañ nañ ko. ma ñëw ñëw bëgg koo gis ñu ñu buux ma di bëgg ma. ña ña la moom alkaati yi. alkaati yi ma ne leen bàyyi leen ma gis ko mais qu'est-ce qui passe man maay papa maa ko jur ñu ne ma doo gis ah, dal di may ba ma ba xale yi bëgg a révolté ma leen non non ah, jarul révoltement parce que yàlla loi ah, yoon a ngi fi. Mm-hmm. <clears throat> Euh, fii euh, biñ ko jël ah biñ ko jël yóbbu ko commissariat mm. bi ñu bëggee dugg dugg commissariat duñu duñu dugg ko yóbbu commissariat ah, ah, ah, te biñ ko biñ ko dem dañ ko mënate ba pare boole ko di ko maas avant ñu koy indi fii urgence ci hôpital avant indi urgence moom bi mu demee commissariat bëgg dee commissariat ci lañ ko soog jël indi ko mm. fi mu ne mënul dara ah bi mu ñëwee fii ñu bëgg koo gis yàppa mooy ñu maas ko mu yaram wi yaram wi lépp lañu dag yow gis nga ko man gis naa ko ah ah, ah, ah, ah doon nañu ko ba muy bëgg a dee rek. doon nañu ko ba muy bëgg a dee rek ah léegi ah ñu bë ñu bëgg ko jëlaat ne encore dañ koy yóbbu ah dañ koy defeere dañ ko defeere. on est on est huissier def na constat bi ah xool nañ ko li ko war a defee yëpp defal nañ ko. Thiès démb ci fitna la ñu fanaan joor. Mm-hmm. léegi nag des na am. version beneen bi. Ah, bu leen oh, jot leen ak mooy xaw a métti. dégg li ma leen wax nuñ ko bëgg a leeralee rek. am nañ fuñ ñu jotee amul problème. ñun buñ ñu waxee ñun dañu jàllale itam. mi ngi noonu. waaw. Dior. waaw. 150. 17. 17. waa ji nee na nañu vidéo bi. Euh, prouvé bi. bi muy ci jumaa waaj dinañ jënd vidéo bi dégg la. ay ci kon joor. xobaa yeew na. Massa. ba suba ak jàmm. ba suba di leen jaajëfal seen ànd ak rajo Futur Media di leen dig daje suba ce sera à partir de 6h incha allah di leen ñaanal kendalum jàmm. ce sera à partir de 6h incha allah di